ni ko sëriñ bi bëggee am kàddu yëpp yu fi yoo xam ne ndigal la lu bàyyi ko Cheikh Modou Mountakha ñëw si moom léegi si bëccëg sëriñ bi wool ko boppam am na lu ko sant mu ne woon balaa wax nag lu jëm si liggéey bii ak cant yi ak ngërëm yi ak li si aju lépp ñu jottali taalibe yi kàddu yi nga xam ne ndigal la lu bàyyi ko Cheikh Modou Mountakha ñëw si moom ndax moom day wax ni jëfe ndigal sëñ Muntaxa rek moo ko fi bàyyi kon nag bu kàddu jibee lu muy ko sëñ juba li muy wax rek dana lépp lu sëñ juba bëgg bu ñëwee ko seera baax rek dana ñu ko defal mu wax ne mi ngi sant njabootam gii bu ñu waxee njabootam gi nag mooy njabootu Seex Faal gépp ndax tey jii moom la yàlla teg si boppam njaboot gi te ko jiitalee kenn fakkatalu ko kenn jiituwu ko kenn gàllankooru waaye ñepp dañu maase rek and ak mom teyel ko yan bi ba dara egsiwul ci mom waxtu wu ne mu koy soñé mu koy wax di fatali muy xolam bu sedd ci ñi nga xam ñom la njaboote bu njabootu maam Cheikh Fall waye nak njaboot non rek lañ mëna mel ndax ki nga xam mom mom yëf mo sos lepp loolu lañu fagul ndax fekkon na fi cër yëpp waaye ba mu ñëwee dafa tànn ab cëram tànn gi nag waxin la rek ndax Cheikh Fall si boppam moo wax ni moom yàllaa ko tekkal sëñ Touba kon moom ñëw sëñ Touba si coobareem ak dikkam ci sëñ Touba si coobare suñu borom ba mu ñëwee moo ko jàngal wala mu won ko wala mu boolee ka ko won ni nu war a toppe sëñ Touba ak ni ko war a liggéeyee muy lii nga xam ne ñun moom la ñu xam muy ak taalibe ni nu ko déggee xamee ko noonu te di ko jëfe noonu saa su nekk muy wormal sa kilifa muy deglu sa kilifa muy jël sa kilifa doxale ko sa digal lepp yaakar ko di liggeyal te yalla rek tax doxin woowu yi loolu la Cheikh Fall àndi won ak seigne Touba ba am limu am waye doxin woowu li mu yéeme yéeme tey jii àddina bépp di roy Cheikh Fall di jangalu ko bopam yalla mi mi ko bind seigne Moussa ko wax nako ko bamuy netti xibaar ak jëbëlam dana yalla mi ko moom ko ne bambalam. demal wëri kon moom ñëwul ci sëñ Tuubaa bi coobare yàlla moom bëgg doxal ay mbiram te mooy seet na ko soob mu doxale ko noonu na mu tànn ñi ko jiitu woon kenn ku ne mu jox la ab cër noonu la tànn sëñ Tuubaa noonu la tànn Cheikh Fall boo defoon sëñ Tuubaa sëñ tubaa féeteeg yàlla rek ak Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waaye Cheikh Fall nag féeteeg sëñ Tuubaa ba fu ñu tuddee sëñ Tuubaa Cheikh Fall rek la ñu xalaat teg ko si loolaa waral. ndigal du ñu ko jaawale dara ci àdduna ndax jëfe digal mom mo nu fi nité mo moo nu fi bàyyi bépp la la la boole si yoon bi bañ lay tuddé ak talibé kàddu la yo jibal ci kanamu kala doy royé ko kàddu yo cheikh bal waxon seigne touba jëmbal na la sama bopp adina ak allah lo mo digal ma def lo ma téré ma bàyyi ku doon ak mourid lolo kàddu yo tax nga doon ab murit waaye kàddu yi awlam ni nga koy jib rek mo koy wax lay tax mu wér mooy waxtu woo boo jógee nga mandargaal ko ci ay jëf mooy la nga diggee sa sëriñ ne ko jëmbal naa la sa bopp nga wane si sa jëmm ak say yow moomatoo dara sañatoo dara si sa bopp ni ko sëriñ Fall mii di waxee ab taalibe bi war a mel ne néew bu ñu sangu ci kanamu way sang yi des koy jëmale fi barab rek waaye moom mënatu la jëmale boppam fenn kenn ku ne yaa diggee woon ak ka nga yaakaar ne ko luma digal dina ko def luma ma dina ko bay kon wax wo jëfee lu bokku dëgg lolé day xam ne si melokaanu doomu adam ndax yalla mo nu birim sëñ Saalum doon wax ni bu nu manal mënaloon sunu bop dara ala lu nu wut ci seigne ñàkk manal sunu bop mo nu indi ci seigne ñu fi sakku ci lo xam ne nu ko am te nu ko amal mënuñu koo sàkkul suñu bopp te nu ko ñàkkit nag lolé dañu yaaka ci seigne bi te mo nu fi indi loolu nak wax mu ne sëriñ bi di ñu di ko bàyyi xel di ko fàttaliku lu jamono ji xat lu mu jaxasoo jaxasoo kenn ku ne di fàttaliku ne li la tënk benn baat képp la muy baatum ndigal baatum ndigal ñu ñëpp moonu tënk te loola nun noo ko tànn ngir yaakaar bi ñuy am ci sëriñ si tey jii nga xam ne ñi ngi ànd ak suñu teeyu bakkan ak ëllëg ba nu mënul suñu bopp dara suñu yaakaar dara génn ci sëriñ Tuubaa moom dong mu nanu yaakaar tey ak ëllëg sëñ bi nag li muy wax mooy nit boo ko yaakaaree da ngay fexe ba góorgóorlu la sa la muy digle nga di sa góorgóorlu la nga man la nga xam la ay tere la nga di sa góorgóorlu si la nga man si bàyyi ko waral sëriñ bi bu déggee kàddu sëñ Tuubaa day daal di dellu si loolee rek teg ndax loolu rek fi ne mooy kàddu sëñ Tuubaa moom jëfe rek noonu sëñ Cheikh Fall jëfe woon ak moom ne ko loo digle mën am la bi lu sëñ Tuubaa digle rek mën naa am sëriñ bu wax ne ñu delloo si waat suñuy xel bu baax delloo suñu xel ci adduna fàttaliku xoolaat ni adduna di doxe xam ne jamono yu njëkk ya ba fi Cheikh Modou Moustapha ak rakam ak mag ñooñee fi newoon ak jamono jii am na ak wóote ndax jamono ji njaboot yi gën naa yaatu jamono ji ak jamono ji gën naa yaatu yu bari ñëw na gane sinu waaye tëriwul lanu sëriñ bi jàngaloon buñ sa moyee du mu réer mukk sedd loolu la sëriñ bi bëgg nu di ko bàyyi xel te di si dellu saa su ne li nga xam ne moo waral kàddu yi Cheikh Mountakha yónni nag yónnee si sëriñ bi mooy li nga xam ne ñëpp xam ne wala dégg nañ ko mooy li xew ci diggante kër gii di kër Cheikh Ibrahima Fall ak kër gii di kër maam Thierno Birahim moom daal moom daal muxti sëriñ bi wax ne sëriñ Mountakha de wax na ko ne ko diggante yaari kër yi dara xaju fi diggante yaari kër yi muy kër Cheikh Rafal ak kër maam Thierno Birahim sëñ Mountakha nee na ko diggante yaari kër yi dara xaju ndax du yaari kër kenn rek la ñoom ñaar day sunu borom ak boobu moo leen boole woon ci seen sang ba di Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa ñu àndoon liggéey boobu di ko liggéeyal sëñ Tuubaa ba kenn ku ne laq ngërëmu sëñ Tuubaa waaye kenn ku ne xam cër ba nga xamante ne bii moom la sa moom la sunu borom moom la la sunu borom fàggul liggéey boobu nga xam ne yàlla doon liggéeyal nu àndoon ànd boo xam ne bii ànd bu rafet la te loolee ñu sampoon ba tax ñu mën a tënku si ànd boobee tey jii dara jóg fi lépp a ngi lépp a ngi fi lépp tey la gën jàpp ni kon nag sëriñ bi ne ko jëfi saytaane bu nu ko bu nu ko bu mukk muy dugg foo xamante ni bii xaju ko seetu nañ ko fu ne ba mu des diggante kër maam Thierno Birahim ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall lu am yaari kër kenn rek la koy tuubu de naka jëkk maam Thierno ak Thierno la mas a jox Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall di ko xoolee sëñ Touba di ko xoolee mbokkam moomee nga xam ne la muy doon magam moom maam Thierno dafa jaayante ak moom jaayanteeg moom ak dundam jaayanteeg moom ak demam jox ko léppam la ko saa ko liggéey ba ngërëm noonu yi doxin boobu moo doon doxinu maam Cheikh Ibrahima rek kon ñooñu fanu dajee ñoo xamante nañ bu baax sëriñ bi sax nga ngénte li yoon woo xam ne la Fall dafa ñëwoon bëgg siyaare ji maam Thierno keroog ba ndaw ñi demee yëgal ko maam Thierno danañ nañu bandi sàkkat yëpp tëral ko ndax jëm jooju li ñëw kenn du ko sàkkal bunt bu muy aw koo xam ne kuy jëru kuy Cheikh Ibrahima Fall xam ne ab cëram kon nag bu njëkkee ba jamono ñu dem ba ñenn si njaboot bi am loo xamante ni si ak ak ak la si ay xalaat wala si ay wax wala si ay jëf sëriñ bi day jàpp ni loolu jëfi seytaane rek la seytaane du du noppalu mukk waxtu wu ne mi ngi gànnaayu waxtu wu ne mi ngi feddali yéeneem si di tasaare loo xam ne loolu sunu borom a ko defar waaye néew na si doole lool rawatina diggante bu mel ne kër maam Thierno Birahim ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi di sàpp si njaboot yépp na loolu yi di xew ñu daal koy féetale sunu gannaaw nag daal koy féetale sunu ginnaaw te def ko mu weef doy def ko ak sant yàlla sunu borom def ko ak ak ak delloo njukkal sëñ Tuubaa ak delloo njukkal ñaar ñooñu nga xam ne ñoom lañ la ko sëriñ Mountakha digal ne na nga woo njaboot yëpp nu daje nga nga ne leen nanu dellu si waat te xam ne jëfi seytaane rekk la waaye yaari kër yi dara xaju si nee muy la jóge foofee ak lu jóge si njaboot bi nanu xam ne jëfi seytaane rekk la sëriñ bi yeddul kenn sëriñ bi xasul kenn sëriñ bi euh, waxul kenn loo xam ne lu lu lu koy lu koy naqare lay doon waaye daa bëgg sini, si nit ñi mhm. ñu xam ni yu mhm. mel waxtu mhm. si yu xat yii nañu xam ne jëfi seytaane rek la jëf fa lu mu gànnaay na la ko yàq jaral moom seytaane ñun bëgg lu baax ak ko jaral allah jaral nañu ko te danañ ko jàgg ba sa kaw ñu dóor ko suuf nappaate ko ba dootu am kàttanam jóg loolu la sëriñ bëgg nu loolu ba mu jeex bu ko bu nu ko xoolatee mhm. bu nu ko déglootee mhm. te képp ku bokk si njabootu Cheikh Ibrahima Fall mhm. sëriñ baa ngi lay digal kàddu lu jëm sa loola bu si yëkkatee ni mukk say kàddu mu jëm si mi ngi mi ngi leen di sant bu baax nag xam na ni taxawaaye kàddu lu si mën a am rek bëgg Cheikh Fall ak yaakaar ko rek a dul moom jërëjëf Fall moom rek lañu bëgg baax na foofu waaye nag loolu wuutewu nag warmaal nga xam ne war nañ koo warmaalante su suñu biir Seera Fall moom yàlla nopp na si ay borom. la sëñ la sëñ ab laa waxoon si sëñ rek. ne lam ne woon suñu borom nopp na si moom. kon nag sëriñ bi na. ñun ñëpp nag. ñu delluwaat si kàddu yi Cheikh Modou Mountakha yi. sëñ bi nee na nañu jéggalante ñun ñëpp. nañu tuubalante ñun ñëpp. nañu balante ak ñun ñëpp. te nañu xam nag li ñu fi te bàyyi ñu xam nag ki nu boole nu bañ koo fàtte muy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. addinam yëpp da koo jaay. addinam yëpp. da koo def li tubaab di wax sacrifié ngir nun taalibe yi ñu am tawfiix kon kookee liggéeyam boobee suñu demee ba toll si xam bii warunoo seetaan dara di ko yàq sëriñ bi te dara mënu ko yàq kon nag delloo si waat xel yi ndigal bi daal mooy mm. sëriñ bi nee na loolu fi jimoon jot na ndigal Cheikh Mountakha mu ne ko mm. na nga jot li taalibe yi njabootu Cheikh Fall gépp ne bu ko kenn waxtaanee bi mm. bu ko kenn tuddal bi bu si kenn waxat yi ñëpp nañ ko delloo si xam ne mbirum seytaane la te seytaane yi moom daan nañ ko ba noppi ah, jërëjëf waaw ñëpp ndigal dong la ñu déglu jërëjëf jëfe ndigal moo la fi te moo la fi bàyyi sëñ bi di koy wax saa su ne te li ñu nawee moom mooy nangu ndigal rek ak nangu ko jëf hmm? kon nag ndigal loolu sëriñ bi nee na ñëpp nañ ko jëfe hmm. ku si gisate lu ñaaw wala lu lu lu loolu si ab téléphone waxu gaa yii xew nan ko romb jàll